jikko yooyu day jikko yoo xam ne la ci yonente bi alayhi salaatu salaam waxoon te jële nañ ci abu saidin al xudri mu wax ne yonente bi alayhi salaatu salaam nee na képp koo xam ne la ngay lekk lu teey la lu teey nag mooy lu dagan la dagan nag day ñaari xeet xam naa danañu ci dikk ndax nit ki mën naa moom alalam mu lew ko waaye nag suy jëfandikoo alal ji it am na anam goo xam ne mooy dagan ci mu mën koo jëfandikoo noona mën naa moom alal ji ba noppi jëfandikoo ko ci anam goo xam ne day jëfandikoo lu xaraam kon dagan gi ñu bëgg a wax wala mën nañoo boole ñaar yëpp waaye ñu bàyyi xel ne daganu li ngay lekk bu mu doon médd li ngay lekk bu mu doon lu lënt na doon loo xam ne ab jullit dagan na ci moom mu lekk moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne képp koo xam ne dafay lekk lu teey maanaam lu dagat di jëfe sunna ba noppi ñu ñu am kóoluteef ci moom ci ay ayibam ak ay bang-bangam nee na kooku faatu moo tee mu tàbbi àjjana kon ndekete bokk na ci yoon yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf koy garanteel nit ki ngir mu tàbbi àjjana di lekk lu dagan di lekk lu teey di lekk lu lew ndax suñ boroom ci boppam mooy nit koo xam ne astaghfirullah alasim suñ borom ci boppam mooy jëmm joo xam ne ku teey la tey soxlawul lu dul lu teey sunu borom subhanahu wa boo demee ci alxuraan da ngay fekk muy wax ni alladina tatawaffaahum almalaikatu tayibiin ndeke ëllëg yowm alxiyaam ñi nga xam ne malaayika yi dañu leen di dikkal fekk leen ñu bokk ci ñi daan jëfandikoo lu teey la malaayika yi di waxanteek ñoom mooy yaquluuna salaamun aleykum udxulul jannata bima kuntum taamaluun loolu dana faggul nit ki ëllëg malaayika yi escorté ko tabbal ko àjjana ngir farlu gam daan farlu ci jëfandikoo lu dagan ci jëfandikoo lu lew loolu nag boo demee ci alquran ay aaya yu bari rod na ci sun boroom subhanahu wa taala di ci soññee am na xadis boo xam ne abu hurayrata radiallahu anhu moo wax ne yonente bi alei salatu nee na nga xam ne yonent bi dafa tàmbulee ci waxi sun borom subhanahu wa taala ne yaa ayuha rusul kulu min altayibaati waalamu inni bi ma taamaluuna alim yéen yonent yi nga xam ne suñu borom kàddu googu def ko adressé yonent yi nga xam ne ñoom la yebal ci xeet yi ne leen dee leen jëfandikoo lu lew dee leen jëfandikoo lu dagan daal di cee teg ne moom yonente bi alayhi salaatu salaam inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna allaha amara almuminina bi ma amara bihi almursalin sunu borom ku teey la te li mu bëgg mooy lu teey lu lew lu dagan daldi ne lam digal nag yonent yi moom sunu borom moom la digal ñi ay yonent te di ay jullit daal di jàng aaya bi te mooy yaa ayuha alladina amanu mu kulu min tayibaati ma razaqnaakum kon nim ko digalee yonent yi noonu la ko digalee ñi dul ay yonent kon ndigal li ñëpp a ko bokk te mooy lépp looy tàbbal ci sa biir muy ak lekk muy ak naan na doon lu dagan daldi tudd sax jëmm joo xam ne dafa farlu lool ci ak jaamu yàlla doon ko farlu ci ak sàmm ak mën a wattu nee na saa bu yëkkatee ay loxoom di woo boromam subhaanahu wa taala di ko ñaan te fekk la muy lekk di lu xaraam maanaam du lu dagan la muy naan di lu xaraam la muy sol di lu xaraam nee na kooku naka la sunu borom di nangoo ñaanam kon ndekete bokk na ci sart yi nga xam ne dana tax sunu borom nangul la sa ñaan boo yëkkatee sa ko wax mu wuyu la may la la ko ñaan li ngay dugal ci sa biir na doon lu dagan na doon lu lew sunu boroom nag subhaanahu dafa may doomu aadama ci ni muy dunde ci kaw suuf xeet yu wuute ci ay ñam ak i naan di ñam yu sell di ñam yu dëppoo ak bakkan loolu lépp nag ngëneelul yàlla la loo xam ne mi ngi koy sotti jaam yi ak yërmandeem joo xam ne du dakk mukk li ñu sunu borom may ci xeeti ñam yi nga xam ne mën nañ ko jëfandikoo mën nañoo wax ne benn muy loo xam ne dafay bàyyi ci gàncax muy luñ ji wala muy meññetum garab wala mu doon loo xam ne dafay bàyyi ci ndundat muy rab woo xam ne sunu borom moo ko daganal doomu aadama bi sañ ko jëfandikoo kon dafa mel ne yii mooy yi nga xam ne moom lañ gën a miin ci lu doomu aadama di jëfandikoo ci kaw suuf ngir mën a dund su ko defee nag li nga xam ne mooy ndundat yi ñu koy wax xayawaan nga xam ne moo ëpp ci lu ñuy jëfandikoo mën naa ne ci yenn gox yi dafa séddalikoo ñetti xaaj dafa am lu ñuy wax alxayawaanul maa i loo xam ne ci biir ndox mi lay dunde maanaam ci biir géej gi lay la dëkk fa lay dunde kooku moom mënta dunde fenn fu dul ci biir ndox mi saa bu génnee ndox mi rek day faatu maanaam day dee danañu ñëw ci ab àtteem moom aajowowul rendi gii ñuy waxtaanee moom soxlawul rendi ndax moom am méddam laab na lii dund ci géej gi du ma ne rek jën waaye mbooleem lii dund ci géej gi moo xam ak deexam dafa sababoo ci jëfi doomu aadama walla sababoowu ci waaye yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon na ca luy tegtale ne lépp luy dund ci biir géej gi moom méddam dagan na loolu it mooy mazhabul jumhur almalikiya li ëpp ci ngiir mi ci loolu la ñu ànd alshaafiiya noonu la noonu kon loolu moom bokkul ci li ñu bëgg a bëgg a waxtaane tey ndax moom soxlawul rendi muy jën ak mbokkam yi bokkal dëkk ci géej gi boo demee ci alquran sunu borom nee na uxilla lakum saydul bahri wa taamuhu mataan lakum wa li sayyaara ñam wi nga xam ne walla yi nga xam ne ñu ngi dund ci biir géej gi buñ xoolee aaya bi daganal gi ko sunu borom daganal ci ñun uhilla lakum saydul bahri nga xam ne lépp loo jële ci biir mën nga koo jëfandikoo loolu dafay tegtale ni kon loolu lu laab la te bu ndikkee ci hadis bi nga xam ne ci la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam di di dëgërale dana leer ci kanam tuuti ñaareel bi am na hadis boo xam ne abu hurayrata moo ko nettali nee na dafa am benn waay bu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñun kat dañuy faral di dem ci géej gi waaye ñaare li ñuy yor ci ndox da dul bari léegi nag suñ demee ba jàpp jot dañuy ragal ne buñ jàppee ci ndox miñ yor danañu mar te duñ am luñ naan ndax kon mën nañoo jàpp ci ndoxum géej gi yonente bi alayhi salaatu ne ko huwa attahuuru maa'u alxillu miitatu ne ko géej moom mooy loo xam ne am ndoxam laab na méddam dagan na te moom it dafa bokk ci yi nga xam ne lu role bu am solo lay suyee ci dunduk doomu aadama ndax bari na ñoo xam ne lañuy dundee lépp foofu lay bàyyi waaye nag ñoo xam ne moom kon bu ñuy wax rendi la bàyyi foofee taxul ñuy wax moo xam doomu aadamaa ko faat moo xam euh, mu doon faatu gu bàyyi ko ci doomu aadama waaye li feeg daal àggul ci soppeeku ba am tooke am lor joo xam ne bu ko doomu aadama jëfandikoo du ko wàññi dara su boobaa dagan na ci moom xaaju ñaareel bi am na lu ñuy tuddee alxayawaanul barma yi mooy rab boo xam ne day dund ci biir ndox mi di dund ci jéeri ji nga xam ne fu ci nekk mën na faa nekk te du ko tee dund loolu boo ci doon joxe misaal mbott ci la bokk mbott mën naa dëkk ci biir ndox mi waaye mën naa dëkk ci jéeri ji bunaat ci la bokk mën naa dëkk ci ndox mi mën naa dëkk ci jéeri ji jësit ci ci xeet yooyu la bokk li ñu wax yeew ci xeet yooyu la bokk bari nañ yoo xam ne dañuy dund ci biir ndox mi di dund ci jéeri ji mën nañuy jaabante soo xeex soo xoolee yeew yu yeew yu mag yi nga xam ne dañuy dund ci biir yenn déeg yi bu nooree danga leen di gis ñu maw ji ci yeneen barab lu nekk ci ndox ba ba muy nawet di dellu si mbott yi noonu euh, xeetu ba ci xeetu bar yooyu yëpp moom lañuy ñuy wooye alxayawaanul barma yi yooyu nag am na ci yu dagan waaye yi ci gën a bari dëgënul ngir dañoo am tooke yi ci gën a bari day am tooke nga xam ne bu ko doomu aadama jëfandikoo mën na koo lool ñoom it daañu ñëw ci seeni àtte insha allah xaaju ñetteel bi nag mooy li ñuy tuddee alxayawaanul yi muy xayawaan boo xam ne dafay dund ci jéeri ji loolu nag moo gën a bari moom it ci li ci li ñuy reen rendi nga xam ne moo gën a yitteel dëgg-dëgg ci tomb bii ñu nekk moom day doon loo xam ne ci jéeri ji rek la mën a dunde boo ko dugalee ci ndox mënu fa dund bu fa yàggee rek leneen fekk ko ci xayawaan boobu nag benn mu doon lu dëkk ci àll ba nga xam ne doonu lu jaxasoog doomu aadama ñu koy tuddee mutawaxish wala mu doon lu dëkk ci biir nit ñi ñu koy tuddee musta mustanis su dee li nga xam ne dafa dëkk ci biir nit ñi loolu moom bala nga koo mën a jëfandikoo faw da nga koy rendi da koy lewetal da koy lewetal ndax moom it dafa am ay façon yu wuute waaye baatu bi lewetal bi rek mooy am na sabab boo xam ne moom la la sariya tegal muy sart bi tax nga mën koo jëfandikoo bu sabab boobu amul rek dootoo ko mën a jëfandikoo bu dee la dëkk ci àll ba it am na sabab buy tax nga mën koo jëfandikoo ndax ku ne xam na ni ki yoru ak jur ci biir këram ñu ne la nag wii kat dagan na manees na koo jëfandikoo taxul rek ni ko sëñ Mor waxe woon léegi soo ko reyee man koo jëfandikoo déedéet da nga koy rendi da nga koy rendi ndax li dagan lay tax mu dagan ci yow sart lay doon nga rendi ko mu doog a mën a dagan ci yow waaye rendi goo gii nag boo ko defoon la daganut tamit du tax mu dagan ci yow li ne la dafa xaraam maanaam mbaam xuux mi nga xam ne dafa xaraam ci yow jullit bi soo ko tëroon rendi ko ci anam nga gën a rafet ca nañu rendee du tax mu dagan ci waaye nag mi nga xam ne dafa dagan ci nag su fekkee dafa deexe neneen nu bokkut ak niñ la niñ la bëgg a wax ne ci sharia noonu lañ koy lewetale su boobaa du dagan ci yow suñ boroom nag subhanahu wa bi mu yónnee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ci ne ma ko waxee woon dafa bokk ci màndarga yi wane ni sharia defal na defal nañu ak yombal mooy daganal gi suñ boroom daganal ci ñun li ñuy tuddee bahimatul an'am muy jur gi nga xam ne diggante nag ak xar ak bëy ak giléem ak yi nga xam ne it boroom ñaari tànk lañu te suñu boroom daganal ko ci ñun lay cosaan nag ci lewetal damay bañ a tudd baatub rendi ndax dafa am façon bu tudd rendi am nu tudd neneen am nu tudd neneen te lépp baatu baatub azakaatu moo leen ëmb moo tax ni ko suñ moor ubbee ci ne lewetal lu am am solo la waaye lay cosaan ci lawetal mooy dañu wax ne bépp ndundat boo xam ne bu ñuy jëfandikoo la bala nga koo mën a jëfandikoo da nga lewetal ci anam gi nga xam ne moom la charia wax ne moom la ñu war a lewetalee moo tomb bi lu lu am solo la rawatina ñi nga xam ne nag seenub liggéey dafa jëm ci fànn googu muy ñi nga xam ne seenub liggéey dafa jëm ci rendi ak yu demee noonu benn muy ñi nekk ci bétuwaar yi wala ñi nga xam ne dañu yor euh, xeeti poulailler di rendi di jaay wala yu demee noonu lu yitteel la ci ñoom ñu bàyyi xel tomb bii nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee ndax même bu fekkente ne la def jëm si wut ci ñoom it ñu sàmmonteeg seen digganteeg seen borom ak seenu sellal ba la nga xam ne ma ngay bàyyikoo ci ñoom di jëm ci ay jullit ñu di ko def ci seen biir mu doon loo xam ne lu dagan la doon loo xam ne lu lew la ba du leen benn gàllankoor ci seen digganteeg seen borom ci seen jaamu yàlla ndax xam nga ni ci njëlbeen wax nañ bu baax ni yonente bi leerale ni li ngay lekk bu fekkente ne dafa xaraam gàllankoor yim mu lay jural kon kiy jëflanteeg nit ñi ci fànn googu nag war naa fexe ba di góor góorlu kem kàttanam ba xam lenn lu nekk nam war a demee ba du jur benn gàllankoor ca ñi mu jëflanteel sunu boroom subhaanahu wa dafa am yu mu xaraamal ci ñun ci yii mu daganal man lim daganal ci ñun léeg nga gis ci loo xam ne jëmm ji moom dagan na waaye ci situation bii mu nekk nag léegi araam na tolluwaay bi mu toll daganatut xurrimat aleykumul maytatu waddamu wa laxmul xinsiiri wa maa uhilla li gayrillaahi bi wal munxaniqatu wal mawquudatu wal mutaraddiyatu wan natiixa wa zakaytu yooyu ñu taxaw ci doog a jàll dañu joxe misaal ci kenn mu yóbbaale ñépp bu ñu joxee misaal ci nag da yóbbaale xar yóbbaale bëy yóbbaale mbooleem yooyu nga xam ne dagan nañ ci lii ñuy wax ci moom lépp loo xam ne dañ koo rendi tudd ca lu dul yàlla jublu ci ak jaamu nee na loolu moom xaraam na ci ñun waaye medd dafa xaraam ci ñun médd médd nag mooy loo xam ne dafa dee dee goo xam ne amul benn sabab boo xam ne sabab doomu aadama la wala sax am na sabab waaye moom jubluwu ci woon rendi loolu yi dinañu ci dikk maanaa nga xëy rek fekk sam xar mu dee kooku médd la dafa xaram ci ñun suñu ko jëfandikoo waaye nag wi nga xam ne dafa xerandiku lu mel ni ak buum daf ko xerandi ci baatam ba nga xam ne wéyal na ci moom pàddu bu ne nee pàddu nag mooy àggale na ko ci àggalekaay boo xam ne laal na ci moom loo xam ne luy faat luy faat la nga xam ne ak dund mënu caa toppaat kooka moom boo ko rendee du tax mu dagan boo àgg ci àgguwaay boobu boo ko rendee du tax mu dagan moo tax euh, léeg-léeg nga dégg ñu wax ne rey mu dee reyul mu dee fekk am nag wuute tuuti nag ndax li nga xam ne dafa feebar ba nga ñàkk ci moom yaakaar waaye amul benn pàddoom boo xam ne wéy na bokk ak li nga xam ne moom pàddoom dafa wéy bu mu wóor la ne faatu doo nga ci topp ndax li ngay ñàkk yaakaar moom loo ci ñàkk ñàkk yaakaar yàlla mën na ko yëkkati waaye li nga xam ne nag pàddu wéy na moom nga xam ne loolu moom ñu ci xam mooy faatoo ci topp kooku moom rendikul tax mu dagan moo xam nag dafa xerandiku ba loolu am ca wala day ñaari nag yu doon mbëkkante ba kenn ki àggale moroom ji foofu ba pàddoom àgg foo xam ne faatoo ci topp rendi du tax mu dagan wala sax mu mu doon nag wu tarxiise ci barab ba loolu dal ko wala muy loo xam ne aw a ko fàdd ndeg ment a ko fàdd gaañ ko ba wéyal doom ba nga xam ne ak dund mënatu caa toppaat kooko rendi ko du tax mu dagan yonent bi aleyhi salaatu salaam ci loolu daf ñoo dénk ndénkaan lu am solo ba bu ñu àggee ci di rendi nag ñu xam nañu rende mu ne inna allaha kataba al ihsaana ala kulli shay sun boroom dafa bind ihsaan muy rafetal ci mépp mbir mu mën a doon fa ida qataltum fa ahsinul xitla su ngeen di rey na ngeen rafetal reyin wa danaa ci ñëw ndax baatub rey lañ jëfandikoo foofu wa ida dabaxtum bu ngeen di rend yit fa ahsinu dibha na ngeen rafetal na ngeen di rendee rafetal aw rendin mooy lan wal yuxidda ahadukum shufrata wal yurix dabihata ñaw ko li nga xam ne moom ngay rendee li nga bëgg a rendi da koy daas namm ko ba mu ñaw ngir li ngay def mën a gaaw ndax nga mën a noppal li ngay rendi ba du yëg metit bi loolu yërmande la boroom xam-xam yi tamit daje ci ne xayawaan kat bala nga ko mën a jëfandikoo da koy lewetal ci anam goo xam ne dëppoon nag ni ko sharia jàngalee kon loolu day wane ne rendi moom walla lewetal moom du caagi ne nu neex nit ki mu defee ko nii mashruuya bi yoonal gi am na xikma xikma bi wax nañ ni maanaam lawetal dafay laabal dafay laabal jëmm ji nga xam ne moom nga lewetal ba mu dagan li nekkoon ci moom ci tooke wala luy lore waxtu yi nga xamee ne euh, tuur nga deretam deretam jooju di tuuru mooy génne lépp lu nekkoon ci moom ci lu war a lor doomu aadama tudd gi ñu tudd yàlla yit ci booy lawetal ñu wax ne moom it tathiir maanawi la maanaam laabal la goo xam ne dafay dàq seytaane ba du amub cir ci loolu nga xam ne moom la ñuy lewetal fuqaha yi nag dañoo xamle baatub lewetal ci ñeenti anam am na lu ñuy wax rendi mooy zabxu gi ma tudd léegi rendi moom lañ gën a miin am na lu ñuy wax loj muy naxar am na lu ñuy wax al aqru muy cor am nag beneen boo xam ne moom yaay seet noo mën a def rek ba loola faatu mel ne rek ku doon jëfandikoo njéeréer xam nga dagan na waaw nga jékki-jékki rek dagg tànk bi daggaat laaf ma mu faatu teewul dagan na nga ne moom du du du doon rendi du doon loj du doon cor moom ñam xeetool mën nañ leen jëfandikoo ci anam googu rendi nag buñ delluwaatee ci ngir mii nga xam ne ci lañu ñu tënku muy masab malik boo demee ci ku mel ne muxtasar Cheikh Khalil moom bi muy wax bi muy jàngalee ren bi dafa wax ne azzakatu qat'u mumayizin yunaakaxu tamaam alxulquumi wal wadajayn minal al muqaddami bila rafin qabla tamaam rendi buñ koy wax mooy ki koy def na nekk mumayis maanaam la ca jiitu du caagi ne kum neex rendi gone mënta rendi ab dof mënta rendi kuy xëm mënta rendi kuy nelaw mënta rendi ku màndi mënta rendi ñii ñëpp ku ci rendi rendi ko du wér boo amee ak ràññee ba noppi na doon koo xam ne maanaam sartuñ rek ci ne na doon ab jullit waaye na doon koo xam ne moom nekk na ci diine joo xam ne jigéen ju ca nekk yow jullit bi sañ nga koo takk na doon daal ahlul kitaab kon ab majuus bu rendee du dagan koo xam ne dafa murtad bu rendee du dagan bu sartu ràññee googu xasee am kii rendi doon mu kàllaf mu ànd akum xelam léegi su boobaa du dutuñ xoolati ba xam góor la wala jigéen la duñ xoolati ba xam gor la wala jaam la maanaam jigéen mën naa rendi ni góor di rendee ab jaam mën naa rendee ni as góor di rendee sart bi rek mooy na amuk ràññee ànd akum xelam li wax nag ne tamaamal xulquumi wal wada jey maanaam li ngay rendi am na lu ñu tuddee ak boli day mel ne raakool am ñaari sidit yu ko séq ñaari yooyu faw nga dagg ko tipp rend gi doo ko mat ba mu àgg te doo yëkkati solof te it boo koy def da ngay tàmbalee ci baat bi waaye doo tàmbalee ci ginnaaw doo tàmbalee ci pegg loos bi moo xam day jor la moo xam càmmoñ la imaam malik moom lim saxal mook ibnul qasim mooy bu fekkente ne da dagg lenn rek ci boli gi wala da ngaa dagg genn sédit gi ci ñaari sédit yi ko séq bàyyi noonu bu faatoo it loola moom kenn du ko jëfandikoo ala kulli haal wuute nañ ceeg nag ku ñu